ci lañu nekk nii bu ko defee délégation yi dañuy jógee fu ne ci Sénégal am nañu euh, lu dem ci 31 sections yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi fi ak représentants yi nga xam ne ñooy représentants régionaux yi ñu ngi fi ak instances yi fi nekk yëpp muy directoire bi muy imaara lañ koy tuddee ak secrétariat général secrétaire général moom moo nekk nii ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci ay directions yi nekk ci biir secrétariat général bi. ak alhamdulilah jamaatu rahman li ko tax a jóg mooy. bay waaram ci diine ji ci domaine yu bëri eh, bay waaram ci njàngale mi bay waaram ci delloo nit ñi ci seen borom subhanahu wa taala ci jàkka yi ci conférence yi ci yeneen daje yi nga xam ne pour wax ci turu lislaam la ko defee lu luñ gis ne mu ngi yàqu lislaam diine la joo xam ne diine yi digle lu baax tere lu bon dafa mel ni assainissement warul mën a ñàkk nit ñi faw dañuy dem ba mu yàgg léthargie am ñu fàtte seen borom subhanahu wa taala nit nit la rek kooku dafa laaj toujours nga koy rappeler à l'ordre di ko wax ne yàlla nee na lii baax na lii baaxul ku dul julli nga ne ko bul fàtt ne da ngaa war a julli dégg nga kii mënul julli nga jàngal ko jàngal xale yi jàngal ndaw ñi euh, def suñu participation ci Sénégal euh, réew la moo xam ne ak ndóol daf fee yaatu bu ko defee luñ ci mën a jàpp. ñu ñu jàpp ko ci faj mi luñ ci mën a jàpp ñu jàpp ko ci euh, defar ca euh, anam gi nga xam ne moo gën a yaatu te jamaa bi vocation am jàngale la ak waaraate ak defaraate euh, ay sénégalais lañu nag l'islam ci boppam ñun niñ ko déggee politique ci la bokk politique yi mën naa nekk réew mi ni muy doxee nga wax ci sa xalaat wax joo xam ne duwul ne da ànd ak diw. wala da nga contredire loolu benn problème la ci ñun ni ñu déggee politique maanaam bokkuñ ci parti au pouvoir wala ñu bokk ci opposition bi ñi fi nekk ñëpp dañoo war a tëdd njaaxaanaay ndax diina lañ fi représenté. gannaaw da ngaa représenté diine nag ñëpp nga amal affaire koo xam ne def na lu dul noonu léeg nga ñëw ne ko du nii bàyyi ko bu ko defati mën nañu wax ne ñaari axe lañ ko def axe yu jëm ci wàllu national justice bi faaw ñu wax ci bëgg nañu bëgg nañu justice bi nekk lu fiable lu sénégalais am ci ñoom confiance ba tax na dossier yi dem justice na nañu ko àtte ci na mu gën a maandoo baykat di sonn nañu jur gaa ngi dee école bi jar naa jubbanti ku ne dañ ci am part de responsabilité rawatina état lim ci def mu baax ñu ngi koy rafetlu li ci des ñu ngi koy ñaax na ci góorgóorlu waaye na Sénégalais yëpp jug ànd ko ak ñoom su fekkee dañuy dem ci sur le plan international am na ay mbir yu fi xew violence bi violence xew ci àdduna bi ci sous région bi ñu ngi koy ñaawlu di woo état yi ak population yëpp nañ vigilance nañ ànd liggéey euh, ngir loolu loolu faju Palestine la fay xew la fa Amérique def toxal euh, al Quds ambassade am ñu ngi koy ñaawlu di woo Sénégal na góorgóorlu def tout ba dossier Palestine moom lañ ko dénk ci Nations Unies na ci gën a na ko gën a jox gëddam défendre ñooñu nga xam